tubaab ngeen baal na ngeen man de xam naa maa ngi seen nataal yi ngeen doon def sax waaye xam nga waxtaan bi wala waxtaan démb boo leen déglu bu baax sax xam ne waxuma ak yéen parce que yéen ku leen gis xam ne xale yi civilisé ngeen ay tubaab ngeen mais nag dëkk boo fa yàggul foog ñu yee la gis ngeen mbër dof boobu kollu ci daanu la de xasaw bi xam nga bëri si ñu ñuy sam xasaw bi ñuy xasaw man daal li ma bëgg ngeen moytu boobu nga maane nag ñoom ñoom loxo yi jël bunt bi leen ko tëj bu leen may kenn dara ak suñu bagage yu baax yi ah moytu leen do ngeen moytu fii daal man bu doon sama sago ngeen jàppee ma seen nijaay man na ngeen nekk sama jaraan <laughs> waa yow noo noo tudd. Bijou Bijou. noo tudd kii bi nag olof bi. waaw ah, leb naa ko. leb nga ko. ah ba tey baax na Bijou rek lañ la woowee. baax na yow nag. jolie maman. jolie. maman ah jolie maman de rafet na nag wolof bi lan la. ah leb naa ko. leb nga ko. ay ah. ah, jolie baax na. jolie baax na waaw jolie baax na. xoolal dégg leen jàmm li ma leen di wax nag dama bëgg ngeen xam may kan. gis nga gox bii maa fi kilif ngaa yëgu leen ne maa délégué la quartier bi. man am na soxla si biti xam. Ah. teg ko sama loxo ma nag li yëpp ba mu leer. loolu daal ni ko xale yi wax dégg leen jàmm. problème boo leen am nag boo leen ma leen baalu ma leen ko. man daal jàpp leen ne maay seen nijaay. yéenay samay jabaat maay seen nijaay. dégg leen kon baax na. loolu rek laa leen doon leen doon doyee naa ko bu yàgg. yow xam nga fi nga ko gisee ñu fàttali ko ñu toogee ñu wax ay règlement man de dama choqué mais ba bis bu ma ko nee ñëpp. mais yow du xaar dañu naan ma ko may mu se xaal mu ne am ne woo ñu yaa taxawale di papa la mooy léegi saa daw nekk duggee ci nekk bi wax rek ñu wan ko nañu mu ne kenn du ko wax ah yow tamit sax coono bi waaye wàcc yaa ko laal li nga tax nga neex ma bu ma ko may dara demal doon ay sama xol la sama bàyyi ko sama loxo rek. wóolu nga ma. boo jëlee ma jël wala ko ñu wokk ko. ma koy diri ba ci biir du ma xaar sax mu ñëw fëgg maa koy fekk di fee diri ko ba ci biir néeg. loolu ma koy laal ma ñëw bokk. moo ko may lenn. xaw ma dama man dama dama dama keefal paas dama keefal keefal laa def. ñuy doomal ñu duñu dëkk waaw. waaye gërëm. tëjal sa gémmeñ ak say rasta yu gàtt. yaay suñu yaay tëjal sa gémmeñ. yéen sama nijaay ngi wax ak yéen démb démb ci mujj ci weeru koor la nekk ngeen di tànkalaate jàpp seen bongo yi di këjëk këjëk yéen lu leen dal ngeen toog di riim ak ay yëngal yéen ci weeru koor la nekk respecté leen doomu aadama yi yéen sabarkat yu mag yi sax ndaanaan yu mag yi sax aj nañ seen i jaaj ci weeru koor bu weeru koor nee weeru koor ñëpp danoo war a aj seen i ndënd ngeen war a baax yéen ñëpp aj nañ seen i jaaj kat yu mag yi nga xamante ni sax ñu international arrêté na. ay waay ay waay lu sama kër gi. nijaay soo sama kër man. man jeeg bi ah, nijaay man jeeg bi sama kër. nijaay nijaay ñi xar nañ kër gi nijaay li yàlla nijaay waxal ak ñii nijaay xoolal ñii suba ba léegi ñu ngi tëgg man dama ne tëll fekk bruit bi mel ni tulleeg maali kenn mënta nelaw te nijaay nag man bul fàtte ne nit laa ci quartier bi. Mhm. ñëpp ma fonk. Mhm. waaye dafa am melokaan ba nga xamante ni boo ko defee man nit ñi dañ may xe dañ may xeex. Eh, eh, eh, yéen laay waxal laa wax soxna si li mu wax dëgg la li ma di gën yéen fii laa bëggoon ngeen yem si maa ngi di ñëw dégg kinjing kinjing mais yéen seen naw la ngeen fi nekkal ah li mu waxoon mooy yëf yi nay baal te bañ a jug kaw ah ngeen fi bëgg nekk nag di tàngal nii. pourtant si suuf lañ ko jàppoon de. dañ doon répété. si fan ngeen ko tegoon noonu. fii lañ ko jàppoon. Sénégal. Cheikh Bongo dafa yee sante bu mu neex. Cheikh Bongo dafa yee sante bu mu neex. ngeen ko jàpp baax na barki démb bi may wax ak yéen. waaw sax am na loo leen ma mayoon. pexe la jël. yaa sa lex ma am na beneen boo leen ma kii woon. mag buur la mag buur la mag buur la. dina doon mu nekk laal nag bu mu dépassé fii. waaw gis nga njëriñ. déglu bu mu ko lay yem fii. yaa bëgg suñu nijaay nijaay. yaa bëgg suñu nijaay boo mu jeex. umpaañ nag loolu dara nekk. yaa ko kër gi. yow daa ngay def.